sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey inna allazina baayahu rasula bi xidmatin qad baayahu aljalila inna allazina baayahu rasula billahi min alsheytaani irrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidi almursalina wattaabiin wa inni u'iizuha bika wa zurriyataha min alsheytaani irrajim rabbi a'uuzu bika min hamazaati shayatin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun laa xawla wala quwata illa billahi aliyul azim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu nuyu jullit yëpp mbokki lislaam ji yëpp di ñaan yépp koo xam te ni ñu ngi teewlu suñuy kàddu suñu boroom subhaanahu tabaraka wa taala def suñu kàddu yooyee fekk ko ci jàmm ak yërmande yàlla ak njéggalam ñu dellu si waat rek ci sunu jataayal yóbbuluk ndaw ñi muy jotaayal xam-xam di jotaayal fàttalikonte ñu ngi koy amalee fii ci chaîne YouTube Murid TV sunu bàyyee xel nag sunu jotaay bii mujj ñu ngi doon jàngale ci zaadu zawit taxallumi muy téere bu am solo bu jara bàyyi xel sunu bind bi ñu mujjee jàngale mi ngi doon jàngale ci ñeenti noon yi nga xam te ni mooy nooni doomi aadama te taqoog moom mu war a farlu lool ngir noonam yooyee mu man leen daan bañ noonam yooyee lor ñeenti noon yooyu nag limun na ko mooy bakkan seytaane àdduna ak bànneex mu ñëwoon ci benn bi njëkk bi mooy bakkan waxoon na lii lay dimbali ci bakkan mooy xiif gu yàgg xiif goo xam te ni xiif gu diggu doomu lay doon lii nga xam te ni mooy ngànnaayal bakkan nag mooy regg kon nit ki heure buy regg rek lekk ba biram fees rek fu mu toll na xam ne bakkanam moom gañale ko kon muy ñëw ci ñett yi des moo tax mu ne wa zijunu dunya waxoon na la bakkan kon àdduna ci tegu moo tax mu ne wa zijnu kaso kasob àdduna xoslatun mooy beru bi xelmin ci xam wa xamalin ak jëf li wajhi muxtil fahmi ngir jëmmi yàlla mi nga xam ni mooy aji maye ak dégg amma silaaxuha ndaal ngànnaayam moom àdduna allasi ngànnaay la nga xam ni tubit dana alak bihi ci moom faxwate moom almuxaalatatu mooy jaxasoo fii xayri mu fii ci lu amul benn njariñ kon mu ne àdduna ci kaso ban nga ko war a tëj yow mi bëgg mucc ci moom mooy kaso beru beru bu ànd ak xam-xam bu wér ak jëfe xam-xam bu wér goo ngir jëmmi yàlla rek ñenn nit ki heure bu defee noonu rek na xam ne tëj na àdduna ci kaso wutal na àdduna kaso tëj na ko ci mooy muy beru waaye beru ko nag na ànd ak xam-xam bu wér ak jëfe gu wér ba lépp lu mu yittewoo ci wàllu diineem ci wàllu jaam yàlla mu def kon def gu wér te lépp nag dara ban bañ koo tax lu dut yàlla rek nga xam ne lépp da koy def te yàlla rek tax mais loolu mooy kaso bi nga xam te nii ci la nit ki mën a tëj tëj àdduna mooy nag ngàndaayal àdduna maanaam àdduna dafa am ngàndaay ngàndaay li nga xam te ni ci lay gañee ay ndoonam ngànnaay li muy gañee ay ndoonam mooy ngànnaay jaxasoo mooy bari looy jaxasoo ak nit ñi di waxtaan ci garam place yeeg waxtaan foo dem di wax rek wax ju bari joo xam ne amul njariñ wax ju bari joo xam njariñ daal ak jaxasoo ak nit ñi jaxasoo goo xam te ni amul benn njariñ nee na loolee ca loolu mooy ngànnaayal kon nit koo xam ni bàyyiwul jaxasoo ak ak ak ay mbooloo yu bari jaxasoo yooyu amul benn njariñ benn lu koy dimbali ci diineem wala ci àddunaam nga ne kon ngànnaayal àdduna jàpp na ko mu ne wa zijinu saytaan nag bilaa xilaafin ci lu benn wuute zikrul ilaahi mooy tudd yàlla almaanihi kay aji fekk almuhaafi kay aji jàmmale amma silaahuhu naal ngànnaayam moom saytaane allazi mooy la nga xam te dana song bihi ci moom mutihan aji topp yàlla ja foofu te moom ufuulu mooy sàggan mooy sàggane tudd yàlla mu ngi nag kon day ñëw ci ñetteel bi mooy saytaane saytaane lan mooy kasoom bi nga bi nga xam ni doomu aadama bi mën na ko ci tëj mooy lan mu ne loolu moom mooy tudd yàlla mooy zikar zikrul ilaah mooy tudd yàlla moo xam ne ngay jàng alxuraan moom da ngay tudd baatu yàlla yi laa ilaha illallah wala moo xam baatu yàlla bu mën doon te di ko def te di ko sellal ci daye ba mu am nee na loolee boo koy def na mel ni tëj nga saytaane ci kaso saytaane moom dut la mën a def dara mooy tudd yàlla loolu nag sëriñ Samba yi am na lu ci leeraloon ci misaal waxoon na ne doomu aadama bi ak seytaane dafa mel ni ki nga xam dafa am ndawal mooy yàpp xaj bi toll fee bëgg ci yàpp wi lool mu mel ni dafa yor ngànnaayam taxaw heure bu xaj bi demee ba jege si ko mu xaj ci ngànnaayam xaj bi daw ba sori foofu yëpp bu demee nag ba wanaat wana wanaat ginnaaw xaj bi ñëwaat waaye bu jub siwaatee ak ngànnaayam xaj bi daw nee na loolu dafa mel ni tudd yàlla ci nit ki ak seytaane nit ki buy yàgg di tudd say tudd di tudd baatu suñu borom mooy zikar seytaane daf koy daw comme ni nit dawee lu ragal mais seytaane noonu la koy dawee léegi nag buy yàgg di ko tudd di ko saxal di ko tudd dina dem ba ci yàgg kat xanaa dina ne jaratut muy dem ak a ñëw dina dem ba mucc ci seytaane seytaane kon tudd yàlla mooy ngànnaay gi ko mën a musal doomu aadama bi mooy kaso bi nga xam ne nit ki mën na jee tëj seytaane kon kaso mooy tudd yàlla mu ne nag seytaane ngànnaay li mu am nga xam ne moom lay jëfandikoo ngir lor la nee na ngànnaay loolee mooy nga sàgganee tudd yàlla bu nit ki sàgganee tudd yàlla rek fàtte turu suñu borom subhaanahu tabaaraka wa taala nee na loolee mooy li seytaane gën a bëgg ndax loolu mooy ngànnaayam gën a mag nga xam ne mën na la koo songee te bu la songee loolu rek mën laa daal kon loolu jar naa bàyyi xel mu ne wasi junu lil xawaa mu ne wasi junu kaso lil xawaa ñeel bànneex sukuutun mooy noppi ga xammaa ca la nga xam te ne lam yëkkul nekkul za faida di borom njëriñ war na xamaa ak xéwal amma moom bànneex àll si nga xam te ne ci moom sax san jëmm fa kastatul kalaami mooy bari ak wax fil dul ci lu amul benn njariñ nee na loolu mooy nga naayal bànneex mu ne kon sa bànneexu bii sa bànneexu bakkan yi boo ko bëggee tëj ci kaso noo koy tëjee ci kaso nga fexe ba saxoo ak noppi lépp loo xam te ni amul njariñ nga noppi ca kon mu mel ni bànneex moom bakkan bànneex bi mu bëgg mooy ngay nga nga ngay xawaare maanaam nga lu la neex wax topp wax ju bari di wax foo dégg wax dem toog fa di wax rek loolu moom mooy bànneexu bakkan kon li la ciy musal mooy fexeel ba bari looy noppi lépp loo xam te amul njariñ bu jën wax dara bu jën nekk di sonal bopp waaye nag na nga xam ne kon ngànnaayam moom ngànnaay li mu yore nga xam ne mën na la cee daan mën na la cee song gaña la moom bànneex mooy balil wax ju bari wax ju xam benn njariñ wax ju bari te amul njariñ rek ne loolu mooy ngan naa yàlla bànneex ngir gañe la kon mel ni ñeent yooyu mooy ñeent noon yi sëriñ bi waxoon ne fii ni ngeen ko wattandiku te ñeenti noonu yooyu mooy noon yi gën a kaay ci doomu aadama bi heure bu fexee ba mucc ci ñeenti noon yi rek na xam ne mucc na ci àdduna mucc na ca àllaaxira li koy maye nag mooy loolu mu wax benn bu nekk wax na la lay tax nga mucc ca moom an naf mooy bakkan wa dunia ak àdduna wa saytaan ak saytaane wal hawa ak bànneex mooy ñeent yooyu mooy li waxoon jaawata bi fulxaan rabiyal muhin malat nafsiya dunia fasadil jinaan wa xaadira yooyu mu doon wax kon nag lii moo nekkoon bind bi doon mottali suñu bind bi weesu ci wàllu nit ki ñu muy bañee ay noonam yim àndal ba mën a topp yàlla ca anam bu gën a rafet kon yàlla nañ suñu moom defal dégg ak topp yàlla na suñu boroom barkeel lépp lu jóge ci suñu làmmiñ suñu boroom jéggal ñu suñuy bàkkaar def nañu xéwal yu bari te barkeel suturaal ñu tey ak ëllëg musal ñu ci lépp looy lore te xëccal ñu wépp yiw ñu ngi nuyu mbokk yi teewlu jotaay bi yépp ñu nekk ci biir réew mi ak ñu nekk ci bitum réew yoo xam ne yàlla na suñu moom defal jàmm in uriidu illa al islaah mastataxtu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh sëriñ bi de sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey